asalaamaaleykum sëñ bi man yaay e Thierno Moulay Junior ñun bég ci yow kontaan si yow dara du ko déglu sama taawa ngi nii tëdd tëdd alaaji Thierno Moulay Sow ñu bari bëgg ko bëgg ko ndax sa tur bi fu dégg fu génne nu ni ana Thierno ana Thierno bëgg la bare Sénégal ñëpp bëgg naa fekk kese moo la dul bëgg ñun daal bég nañ ci yow. asalaamaaleykum Daroulahi International ñu ngi leen nuyu ñëpp di suba sëriñ di la ñaanal jàmm di la ñaanal tawfiq di la ñaanal buur bi taala yàlla bu nga xam ne moo la wàcce si àdduna bi pour jëriñu doomi adama yi jinne yi ñaan buur bi subhanahu wa taala yàlla na àdduna bi yàlla na la yàlla bàyyi si àdduna bi mboolem lim jox yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla ful yéegal ko lawlul mahfuus laaxa ko fu laaxal di la ñaanal jàmm di la ñaanal tawfiq di ñaanal famille bi yëpp madame la reine yàlla ko ati jinne prince mu lay mboolem lu nga joor yàlla na ko ko yàlla jox bu toog si xilaafa bi yàlla ko ati jinne di la ziyaar di wax jaay yi suñu ex président bi lay commencé ñoom lum ko defal adduna bi yëpp teg nañ si seen bopp moom si boppam te mu ñaas na ko so suñ toogee ñu ne ñoom dañoo complot pour dem ni Saddam la ñoo yaaxa tuuti nañ ko munuñ ko yalla nit yalla mi yalla moko de wace inna ma amru za arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in ilayhi turja'un fa'ilun lima yurid lu sopp yàlla loolu la dee def waaw jéego yu nga jël ak tarbiya bu nga tarbiya bi yàlla jox la sa maqaam doomi aadama mënu koo dindi doomi aadama mënu koo yàq te jox sonal seen boppa woo ñu yàqu la si ñoom dañoo sonal seen bopp ñu yàqule si yàqu seen seen seen seen lépp parce que yàlla moo la ko yàlla def la jawriñ si suuf buy dimbale miskinam yi ak baadoolam yi téye sunnatu ti yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa si àdduna bi ñoom su fekkee ne ñu ne loolu la ñoo complot pour yaaxa ko moo gurubam bi dañoo sonal seen bopp waaw mboolem luñ mun a wax benn abesek rek abesek teemu ñaasam bi abesek moo leen ëpp xam-xam moo leen moo ëpp darja moo leen ëpp makaama si zahir moo leen ëpp xamle moom la nit yi fonka Sénégal moom rek rek rek su taxawee témoignage-am boobu mboolem ku dugal si réseaux sociaux di waawee kesew kesew lu la neex buñ ko boolee waxi Abbé Seck si balaas Abbé Seck waxam bi témoignage am bi daaneel na ñëpp parce que témoignage bu mu la defal si àdduna bi war képp ñëpp a ko dégg témoignage boobu rek rek rek doy na témoignage waaw kenn mënu koo dindi loolu moo tax nit yàlla su ko yàlla di fay dafa indi nit yu nga xam ne si àdduna ñoo am maqaama ñoo am daraja si zaahir si baatin ñu témoigner ko waaye yàlla buur bi subhana moo la mun a fay yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla fay. xam nga ak biir yi mu doon am euro yi dollar yi na si yow la ko mosee gis si yow leen ko mosee may ay euro muy sarme lu ne mu dugg si faale woo ko kii dem ba dellu si màggatum portugais ras ba dee sëñ bi xam nga ni kii daal di ko indi sa kër la amul looloo tax xol bi tàng. <laughs> muy wër di wax di la waxal kenn xamul ñu bëgg nañ la ba pare kenn du tax ñu bàyyi la. waaw man maa ñëwaat di continuer vidéo bi di wax ne yàlla buur bi subhaana taala ak sa yoon ci yàlla Muhammad fajar bu nekk suy julli fajar benn aaya alxuraan la day jàng pour fàttali nit yi àdduna bi. Wadduha bu layli la dee jàng aya bi lam yajidka yatiiman fa'awaa wajadaka daalan fa'aghnaa wajadaka aa'ilan fa'aghnaa fa'ammal yatiima falaa taqhar wa ammal saa'ila falaa tanhar wa ammaa bi ni'mati rabbika fahaddith aya boobu yow yaa ngi dundal boobu si àdduna bi parce que kuy onze millions di ko jënda lekk di ko jënda mboolem façon xéewal boo gis woo miskin yi yàlla yi si weeru koor tasaare ko seen diggante gay jéego yu ñoo jël di ñëw jël loolu ak jéego yu ñoo jël di ñibak boom ak kontaanement bu ñoo kontaan bi aga seen ek kër yi sutura nga leen sutura seen seen àdduna yàlla buur bi lum laa fay si loolu yàlla rek a ko xam te jaamu yàlla yu ngay faj te di ko def addiya yonent bi boobu yee témoignage yëpp àdduna bi gis na ko soo ñuy wax ne dangaa fay nit yi pour ñu daaneel son bopp xanaa ñoom gisuñ loolu ak ñu ngay faj ñu dem fàtte la pol beneen jinne dugga ko mu delloo ko si pour mu ñëw mu jénne nga jénne ko boobu yëpp gis nañ soo ñëw wax yëpp waxi kesew la rek dañoo seen bopp am na ñu nga xam ne yàlla moo la boole ak ñoom si taalibe ñooñ dañoo ànd ak yow yàlla buur bi moo nama loolu kenn mënu koo dindi kenn mënu koo yàq ku ko bugg a yàq danga rek di la ñaanal jàmm ak tawfiq di la ñaanal buur bi subhanahu mu bàyyi la si àdduna parce que yaay faji rongo ñi girim yi ak baadoole sa ñaxa nga jénne xaalis bu bari nga defal leen ko addi jénne xaalis yu bari niwi doole yu ngay dimbale xaalis yu ngay def si morgo yi yëpp ko def ngir yàlla ak yonti yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam sa yàlla buur bi subhanahu wa taala moo laa feeñ waaw yàlla nag waaye yàlla bu mu taxawal nag def ko jëwriñ si àdduna ku ko laal nag yàlla si boppam nga ngay kombaayal te ko kombaay ak yàlla sa daanu doo sa daanu ak sa jëlla yu ñaaw yu ngay jëlla yu ngay am dafa dee bët waaye dinañ gis de loolu yëpp dinañ ko gis incha allah yàlla na la yàlla yaagal si àdduna bi mboolem lu ngay defal doomi aadama yi yàlla la ko yàlla fay buur bi subhana taala moo la mun a fay yàlla na di la ñaanal jàmm di la ñaanal fan yu gudda di la wax ne buur bi subhana taala moo la mun a kuy nekka si radio sociaux yi di wax waay e kese kese muy dañoo sonal seen bopp rek dañoo sonal seen bopp yàlla taal bu mu taal kenn mënu koo ko bi nga fay danga lakkaale sa luñ seenal seen bopp di la ziar di la sant di la gërëm di la wax ne asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu sa taal bi Marfan Suso moo la ñaanal jàmm di la ziar di la wax ne salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamaaleykum daarulahi international kër yàlla kër yonante bi wax ci témoignage suñu sëriñ ku baax teral macha allah ku jëflante ka moom dinga gis résultat macha allah liggéeyam dafa set tey dimbali nit yi man sama waa kër macha allah depuis sama yaay jëfalante ak moom tabaarikàlla macha allah ba ñu jël suñu famille yu nekk si Mauritanie ñu ngi ñëw si Thierno def traitement foofu même sama famille yu nekk Sénégal foofu ñuy waajal sax di ñëw def traitement foofu donc ñun suñu gisutul résultat dañu àndi suñu famille foofu. nit moo mel noo ko gëm gëm na ko gëmul yaa xam waaw Seydi Sow ma dellu siwaat rek ñun dañ ñoo defar dañ ñoo defar kuñ gis niñ meloon ak léegi niñ melaat wallaay Seydi Sow xam ne la defar defar nga ñu bu baax a baax a baax a baax dañ daan mer fuñ toll ñu ngi mer di beru waaye Seydi Sow defar nga ñu de wallaahi dañ ñoo defar dañ ñoo defar Seydi Sow ñiy wax ci ñooy yow lu ñaaw nag dañoo xamul rek waaye buñ xamoon duñ wax ci yow lu ñaaw de duñ wax ci yow lu ñaaw duñ la defal lu ñaaw duñ la waxal lu ñaaw ndax yow xamoo lu ñaaw teraanga rek nga xam ay teraanga rek fuñ la fekk yaa ngi joxe teraanga yow dangaa namm oor yow nammoo oor yow nammoo oor Seydi Sow nammoo oor ñu naan ay oor oor mooy lan yow dangaa namm oor ñii ñii de lu ñu leen bëgg a wax rek Seydi saw dañ koy xeeb wallaahi lu ñu leen bëgg a wax dañ koy xeeb ñu ngi fi ne wax lu ñaaw lu ne façon bu ñu ñaaw wax bu ñaaw ju ne wax nañ ko fi ku nekk nga seetaan tiktok naan kii liñ koy waxal liñ koy waxal liñ koy waxal te yàlla xam na ne liñ lay waxal yépp Seydi saw dara du ci dëgg ñoom ñooñ ñooy sawkatu lal yi ñooy daykatu lal yi ñoom ñooñ ñooy mbaam yi ñooy naaf féqi ñooy saytaane yi waaye nag suñ boroom moo leen ëpp doole yow yàlla nga fi nekkal ak Seydina Muhammad sa soppe ba ñoom nga fi nekkal waaye nekkaloo leen fi ñoom ñun nag say taalibe say mule mule ñu ngi fii ñu ngi fii loo woote ñu ñëw loo woote ñu ñëw macha allah saw yow duñ la bàyyi ba allah yow mi diini dañuy xalasoon rek dañuy xalasoon rek ndigam gën ngeen mbindeef Seydina Muhammad sangu sang yi moo fi ëppooni noonu sàkkantumaa nag suñ sëriñ la sàkkantumaana yow suñ sëriñ te dañ lay ñaanal nga yàgg fi loolu te wér di yàgg bonloo seen xol yi dañ lay ñaanal nga yàgg fi loolu te wér di yàgg seen xol yi ñoom ñuy gën di bon seen xol yi di gën di bon yow ca kaw ca kanam rek ngay dem dangay dem suñ sëriñ dangay dem te dem nga ba pare sax macha allah ca kaw ca kanam ndax sa yaay dalaa ñaanal jàmm salaam rek ngay am saw aouzu billahi min bismillahi rahmaani asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu daarulahi international kër yàlla kër Thierno Moule Sow maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax maa ngi njëkk ci sama sëriñ sama soppe la xalif général de jinne borom sam si sama ruusin jàmbaaru l'islam bi le grand missionnaire d'Allah maa ngi lay nuyu bu baax a baax sëriñ bi di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay nu mu gën a kawee waaw maa ngi nuyu bu baax a baax di la masawu coono ah di la ñaanal saa su ne gudd fan bu ànd ak wér gi yaram maa ngi lay nuyu bu baax a baax Sow di nuyu madame Sow la reine la princesse Moule yaayu prince di ko ziyaara bu baax a baax maa ngi nuyu également prince Moule le grand prince di ko nuyu bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram waaw di nuyu waaj suñu jawrin ci daaru laax yëpp ah. Euh, tonton Sow Bakary Sonko Gallo Sow Fama Sow Dikel Sow di nuyu tamit suñu yaay yi nekk ci panel bi yëpp ak suñu pap yi ci panel bi suñu frères yi ak suñu sœurs yi ñëpp maa ngi leen di nuyu mu le mu ne yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay waaw sëriñ bi euh, man la Boury Faye Moule sa euh, taalibe bi gën a xeebu macha allah. waaw dina la masawu ci ci ci defeyaan yi traître yi nga xamante ne da leen for ca àll da leen a for raxas leen ba ku leen gis bëgg leen ñu ñëw doon ay baadoola doon ay traître di wore ba pare ëlbatikuwaat di ñëw di waxaat di wax lu ñaaw ci yow te yow ku xam dëgg xam ne kuy kuy wax dëgg yow lay jàppale kuy dox ci diine lislaam yow lay jàppale macha allah ñépp xam nañ ne yow soppi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mag magga mag macha allah yaa ngi ci social bi yaa ngi dimbali doomu aadama yi yaa ngi faj nit ñi ànd ak sa xol bu rafet xol bu laab macha allah di accueillir macha allah dimbali doomu aadama yi rekk a fi nekkee koo faj mu wér koo ñaanal mu wér macha allah ci lépp ci kàttanu yàlla te sa lépp yàlla ak yonante bi nga ko dénk lu ñu wax nga ne yàlla lu ñu wax nga ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yemoo ci wax dangay jëf ñëpp di gis seen lépp transparence la bañ nga ko ba wooy faj da wane lépp doo làq dara loolu kuy faj di filmer tey jii ci Sénégal wala ci Afrique mbaa ci àdduna bi ci yow la ko gisee. ñu ngi sant bu baax a baax yow ñëpp la wóolu képp ku baax rek bëgg na la wóolu na la gëm na la ñun nag say taalibe amul benn défaillant buy wax ba mu changé suñu xel ci dara parce que ñun ñoo la bëggal suñu bopp te yàlla rek tax yonante bi tax sallallahu alayhi wa sallam nit ku baax nga yàlla def na ay màndarga ci yow muhammad allahu lépp gis gis nañ ko ci sa kanam macha allah nitu yàlla piir nga wala yu piir nga bokkoog benn fajkat ci Sénégal te yow nekkoo sax fajkat kese wala yu bu mag a mag a mag nga number one suñu xol yi yow yaa ci nekk vraiment ñu lay jéggalu bu baax a baax a baax ci xew-xew yi fi am yépp jaam moom jaam rek lay mën a doom ah ex ex xaw ma oh ex jëwriñ boobu moom moom wax dëgg yàlla moom mooy du ma lekk ci ndab li ba pare dama ciy xëpp suuf moom moo la fi waxal lépp lu baax yow nekkoo woon sëriñam kese sax mën nañ wax ne sax pàppam nga woon parce que moom au lieu mu def yëfu jàmbaar ah doon góor mais yëfu jigéen sax la doon def jooy na ci sa kanam jooytu na saa su nekk ku ko xoos mu ne sëriñ bi nangam mu dem boole ji mooy moom mooy borom boole moom monsieur Boole monsieur Boole ñàkk ful la ba bëgg dee mel ni jigéen ay moroomu góoram ñoo koy tong-tonget ci ci fa muy liggéeyee ca gaar ba mu ñëw di boole di jooytu di jooy xàccit sax def na ko amul fulla amul fayda ñëw nag eh, jiite beneen coalition ànd a xeex Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow du ko ñuy xeex amul benn mbindeef boo xamante ne sur cette planète mën na xeex Thierno amul ñun dañoo fier ci moom dañoo kontaan ci moom mooy suñu fierté c'est un exemple mu Moule Sow li muy def di suñu kenn ku koy def kenn defu ko fi Thierno yaa fi def lu kenn deful koo ñaanal mu wér man de ñaan muy nangu ci yow laa ko gisee man maa ngi def traitement ci yow dama laa bëgg rek te yàlla tax nekk sa taalibe maa ngi def traitement ci yow premier jour laa ko sangoo deuxième troisième jour ma gis poste te man leeroon na ma ne ba may postuler poste boobu c'était fait pour moi man maa xamoon naa ne man maa koy moom parce que sa lépp ak xel bu dal ak wóolu la mais vraiment te yàlla xam na ne noonu la amee yàlla xam na ne noonu la amee sama doom ba mu juddoo macha allah ci la am biir buy metti mu ngi nii waxatul sax jàmbatutul sax biir macha allah lépp ya grâce à Allah ak sa barke macha allah ñu ngi kontaan ci yow yow boo fi nekkul woon àdduna tukki yow yaay le grand missionnaire d'Allah am na jinne boo xamante ne daf la wax ne Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kontaan na ci yow yow kilifay diina yëpp wàll yu yëpp ay ñëw di la seet si ci zahir ak ci baatin macha allah yow doo moroomu kenn fii nii di wax nañ leen bàyyi foofu nañ leen sànni ca sën ex boobu moom rusloo na ñëpp dafa waroon doon góor waaye jikkoy jigéen la yor góoru mbootaay ci loolu la gën a jekk nañ ko bàyyeeg ñooñu waaw sawkatu lal boobu jigéen boobu nga xamante ne ak xeesalam bu mooy bett na ñëpp moom tamit waaw parce que moom moo fi ñëw indi doomam doomam bëcc mu ndar kàmm ay picc yoo xamante ne kenn xamul fu ñu jóge di topp topp doomam bëccëgu ndar kàmm picc yi di moytu ñëpp ba mu des doomam ñëpp xam nañ ne picc seytaane la euh, ndaw soosu sawkatu lal boobu di xembali rek di kuusu rek ni liir ñàkk ful ñàkk fayda ñëw di di di ah non non non vraiment baadoo la am na waaye bu mel ni moom musuma koo gis ah yow yow nit ñi bëgg la bëgg la fan ndax sëriñ bi yow nga waxal nit lu baax. pendant longtemps nga ëlbatiku di wax ak safar yow am sa ngor amoo ngor amoo teggin amoo yar yow ni nga mel noonu la sa ndey mel noonu sa baay mel parce que buñ la yaroon comme il faut doo dem di saaga kilifa ñeneen ñun nag yaa ngi tooñ rusloo nga ñu torop fonkoon nañ la wegoon nañ la ñëpp la bëggoon ndax sëriñ bi waaye vraiment tu nous as vraiment déçus waaye nag moom lu waaye def rek sa bopp man ngay wëlbatiku waat nag di jooy ak sa kanam gu diis googu mel ni bayaala xujja bajaam ba ca Cees waaye yow fi ngay fekk nit ñi mule mule ñoo la gën a xam ñoo la gën a xam nu mu demee fuuf yow seen deux nga yem mayox ñu di la jox qualificatif journaliste yow doo journaliste da def animation nii rek di def ambiance nii euh, comédien nga non mais ñu jox la garaat jox la liggéey di la sagal di la ak ca kaw nga defe ne yaa fi nekk sa xeesa bi mel ni kokaab yenn gëllëm kenn xamul looy nuroo timpi tampak say musiba yu nekk ci sa yaram bi taas yu nekk nga màgget kenn xamul looy nuroo bañ nga ko ba yaa waxal sa bopp ne vite fait bu ceer na mu lay sew moom ngay def ci sa produit xeesal yu bon yooyu pour mun a am teint bu unifié yaa ko fi wax vidéo yaa ngi ci yi nga li nga waxoon yëpp ci YouTube bi ku dugg YouTube dina ko gis YouTube bi ku fii dugg dina gis yaa yaa wax lii ñëw waxaat euh, opposé ba tey jii góor nag moomul soppeeku troisième défaillant bi nga xamante ne moom laay woowee jaamu xalpulaar yépp jaamu jaamu pulaar yi bokkul ak lien de cousinage de waxuma séeréer waxuma kenn jaamu jaamu pulaar yépp laa wax <laughs> non non non kii moo rusloo li gën a bon ci àdduna mooy noon boo xamante ne dafa taq ci yow bokk ak yow boobu moo gën a yées mu ñëw ñàkk fayda ñàkk fayda yoo bëgg a dee amoo koy xeex lu dul koo xamante ne yenn a bokk yow moom ku la gën a doon jaam amul ci àdduna bi yow laa gën a mere sax ci àdduna bi yow yow non kenn xamul looy nuuroo nga mel ni hippopotame non non kenn xamul looy nuuroo vraiment yaa ñàkk jom yow koo xamante ne nga nekk adolescent moo la jox lekk jox la naan yar la ba nga màgg takkal la ñetti jabar nga di ko wor nii waaye yow li lay dal doo ko xam bi ñu lay la di la ci ci liggéey bi ngay def nii amul kenn ci àdduna man de gisaguma ko sëriñ nax dama wataayi ay million gisu suma gis fu mel ni yow yow doo moroomu kenn foofu ci àdduna bi laax doo moroomu kenn macha allah ñun mule mule yi ñu lay sant di la gërëm di la ndamoo yaay suñu fierté àdduna ba àllaaxira te ñu ngi ñaan yàlla bàyyi ñoo ko yow àdduna ba àllaaxira bi barakaatihi nabi Moustapha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man sa taalibe bi gën a xeeb maa ñaan yàlla loolu suñu borom yàlla ñu ko defal. yàlla nañu yàlla bàyyeek yow abadan daay man yaay suñu fierté yow la ñu bëgg yow la gëm gëm bëgg dëggu insha allahu rabbi ba abadan daay man asalaamaaleykum wa rahmatullah même nit su la la joxe euh, coupe ndox un jour boobu geste danga ko war a sàmm soo soo toogee ba nga génn fu nga nekkoon nga toog ngay wax lu rafetul lu amul <laughs> parfois damay wax nit yi duñu xalaat parce que soo waxee duñ lay doon fay pour nga daam donc yow tamit complice nga complice nga mais alhamdulilah suñu sëriñ duñu fay au contraire ñooy fay suñu sëriñ pour mu dimbali ñu dañuy wax bic bi baaxul maa ngi ni man bic bi laay utiliser bic Thierno Moule Sow mu ngi ni damay jànk Amérique. association Darou Laye maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp wax Thierno Moule daal amal na njëriñ société bi man mii mun naa ci témoigner parce que man ay seytaane ñoo ma sonaloon ay dëmm mu jàppale ma bu baax. mu am tawféex ay dëmm ci ne sonal la nañ moom mu jàppale mu baax ba ma am tawféex sant yàlla daal alhamdulilah Thierno Moule dafa amal njëriñ société waaw Thierno Moule muy wane kenn musuma gis sëriñ bu koy wane bi kuy jàpp dëmm di ko wax loo man kan mooy monsieur kan ba sëriñ moo ñu engagé dëmm fii ci bi koo wax ji sëriñ bu xam ne yow dëmm la jàpp day delloo avance bi ne bul ñëwaat sama kër waaw mais moom nañ ko bàyyi mu liggéey. ku xam yaa ngi doon liggéey ak Thierno Moule ku doon liggéey ak Thierno Moule liggéeyoo toog moom mais ngelaw demal nga liggéey gëm yàlla dem di jëm sa yoon mu jël yoonam mais bul wëlbati ko di ko yàqal quand même moom lu muy wane dafa wane preuve quand mais yow liggéeyatoo Thierno Moule rek nga koy yàqal c'est pas normal mais Thierno Moule dafa dafa prouvé dafa prouvé les faits sont là dafa prouvé dañ ko bàyyi mu liggéey waaye ku yàlla may daal xoolal naan taal bu yàlla taal sànni ci matt moo gën nga naan da koy jéem fay ceerno lañ la bàyyi nga liggéey daal yow téele man daal lu ma lu ma mën a seede mooy yow téele meer man daal sëriñ buy jàpp dëmm di ko wax loo ci yow laa ko mosee gis benn sëriñ mu ñëwul engagé yu dëmm naan day faj dëmm kenn ñëwu ko ñëpp ay daw am delloo seytaane boobu la wax seytaane bi seytaane bi téele daal jàmm ak xewal waay asalaamaaleykum waa TMS ñu ngi leen leen jox seen wàccuwaay Thierno Moule Sow ñu ngi lay nuyu di la ziar la jox sa wàccuwaay macha allah ak njaboot bi yëpp ñoom prince ñu ngi leen di leen ziar ak soxna si ñu ngi koy nuyu di ko bu baax a baax a baax maa ngi tudd Kalidou Socom nekk Kaolack waaw di liggéeyee Kaolack macha allah waaw li waral vidéo bi mooy vidéo bi mooy sant ñu ngi lay sant di la gërëm di rafetlu sa liggéey di rafet lu sa taxawaay bu baax a baax a baax si jàmm yàlla yi. macha allah li waral lu waral vidéo bi nag li ko waral mooy dafa am ay témoignage yu ma bëgg a def ci yow waaw dafa am ay témoignage yu ma bëgg a def ci yow yoo xamante ne ni macha allah dafa am fu ñu jaar waaw ñu lay sant ci loolu di la gërëm bu baax a baax a baax sama doom feebar na bi feebar bu métti xale bu war a am ñeenti at jàpp juróomi at wax dëgg yàlla ñu jaaxle fi nag fu ne yóbbu nañ ko fu ne yóbbu nañ ko dëgg yàlla fu ñu yóbbu nañ ko euh, parce que yóbbu nañ hôpital yóbbu nañ ci maaman yi sëriñ si ñu bëri wax dëgg yàlla affaire yi sotteewul ma jaaxle ba jaaxle wax dëgg yàlla dama jël dama yebal soxna si mu ñëw foofu dama yebal soxna si mu ñëw fa macha allah ba mu fa ñëwee tamit aussi nga xoolal ko ay mbiram xale bi dafa ñëw dugg si ci clinique bi rek macha allah xale bi commencé tane c'est xale bi sonnoon na sonn boo xamante ni sonn bu métti la woon wax dëgg yàlla parce que koo xamante ni daanaka toog na toog na tout la journée xale bi mënut a lekk mënut a naan di jooy rek di yuux rek di jooy di wàccu bay wàccu deret xam nga ne kon kooku sonnoon na trop ci feebaram bi macha allah waaw wax dëgg yàlla ba ma wootee foofu ñu nu mën a fexe indi soxna si nu mu gën a gaawee pour xale bi ñëw faju si si laa ji yebal sax soxna si ci même jour bi mu daw dem ba mu ñëwee ci clinique bi tamit macha allah xale bi dafa ñëw même nelaw xale bi daawul nelaw dafa ñëw rek dugg ci clinique bi commencé di nelaw yaay ji woo ma ne ma kat xale baa ngi nelaw nag sant yàlla bu baax alhamdulilah ba nga ñëwee ba nga xoolee ne ma xale yi ay dëmm yee ko topp waaw kii xale yi dëmm yee ko topp mais comme njaboot gi suñu njaboot lañ ñu waxtaan si jubóo ci wax dëgg yàlla macha allah nga taxaw ci taxawaay bu rafet aussi nga def ci tamit li la war ci liggéey bi wax dëgg yàlla moo jël traitement am yàlla may ko sutura xale bi tey na ak jàmm wax dëgg yàlla actuellement nii sa xale bi mu nga fóota di jàng macha allah loolu it ku la ko defal it war nga koo sant di ko gërëm koo xamante ni jaar nga ak moom foofu boo gisaatee tamit aussi sa beneen mbokk bu tawat bala ngaa xalaat kenn moom ngay njëkk a xalaat yàlla def na tamit aussi sama rakk ak sama jarbaat tamit aussi feebaroon nañ fi ñoom i comme genre feebar yu demee noonu fekk ay jinne yu bon ñoo ne ñoo nekkoon ci seen i mbir ak ay liggéey yu doy waar wax dëgg yàlla ñoom it ba foofu nga waxaat ma même leen topp dafa bëri kalidu ñii li leen topp dafa bëri ma ko waxee nga ne ma ñii seen la laaj asalaamaaleykum mooy Darou Laye International maa ngi nuyu suma mbokki Darou Laye yi di njëkkee suma nuyoo bi si seen sëriñ suñu xarifi général borom allahu bi borom xool day moon bi borom kun fa yakun ñu ngi laa nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yal na la yàlla béy bu defar ban ba daal yóbbu yàlla nga dunda dunda ba dunda saako la soow parce que yow sa dafa am solo si askan wi man ko lu nga defar askan wi nga defar jaamu yaara yëpp nit ñi yëpp am ci teg seen bët man ko ak amul sa fay yaara buur bi rek moo am sa fay waaw moom amul dara lu laa fay di la ñaanal su nekk na ñaan ba ci na mu lay sow jërëjëf ci na mu lay sow nuyu madame Souare ak Prince Moulé ak suñu yaay jooju Mariama Kamara ñeneen yàlla may ko defam xam nga daa wér bu wér ak atum ci ne yéen nañ fi dundal te yàgg lool te wér nag di wax suñu naxar am. suñu bi parce que liñ wax suñu sëriñ bi rek daf ñu naxari moo tax ñun taalibe yi tey moo tax ñu dugga di wax li ñu naxari ñi nekka nekka di wax naan sëriñ bi lii sëriñ bi lii xam ne ñu fi moo ta àdduna bi nit dafa lëndëm waaye sëriñ bi xam na yépp daf dee bàyyi nit ci biir nit ci biiram rek mu di la xool seet waaye nit looy def te dëgguwut yàgga yàgga rek dangay feeñ mooy lii rek ko yàgga yàgga dangay feeñ ma ko yéen sëriñ bi amul fu mu jaar ak yéen amul fu mu yéen dimbale leen lu nekk la leen defaral tey ngeen toog ngeen a ko wax ma ne ko tey yéen a ngi toog ngeen yéen wax sëriñ bi ma ko yéen amuleen jom amuleen dara loo leen a rus boole na amul loo leen a rus loo leen billaay lii sa doo toog toog ngeen di ko wax sa nit ñi di ko dégg ma ne ko sëriñ bi da ngay war a toog si suuf di ko ñaanal ni su la defaree soo amul dara loo ko fay danga koy ñaanal sëriñ bi nga ñaanal ku ñàkk ko ñaanal moom dem na waaw ma ne ko moom lum am tey moom si sant yàlla bu baax waaw kon soolu kenn di jaamu ya jaamu yàlla di dimbale joom jaamu yàlla yépp ma ne ko ñu de ñun taalibe ñu ngi nii ma ne ko di kontaan si moom saa su nekk lu mu mooy nañ gëm déggu bugga di toppan digal di ñu tamit di ñu wax tamit su suñu lu baax rek la ñuy wax lu baax rek la ñuy digal ñu suñ sëriñ waaw waaye ngeen toog foofu lu nekk ngeen a wax di ubbi seen génn ñii dimbale na leen fii amul lu mu leen dimbale sakatuma laa ko nekkoon suñ kër bi suñ président bi sëriñ bi dimbale na la fii wax dëgg yàlla ma ne ko lu nekk la la defal yow moom kere yow moom bi faj na la faj sa doom ma ne ko yenn saa yi boo koy wasa danga war a xam li nga wax yow vidéo bi ñëpp a ko seetaan ma ne ko ñëpp ko seetaan ma ko sëriñ bi faj la fi faj sa doom génnee jinne yi macha allah ba nga am tane nga nekk di liggéeyal sëriñ bi tey nga ne yaa ngi toog di ko waxal man sa man xam ma sa waaye man doomi aadama man yenn saa yi sax doo dee doo dee xam sa lan ngay wax yow nga nekk fii tey nga ne yaa ngi man sax ñu la dee déglu sa ak nit ñi lifin sa yow yow sëriñ bi amul lu mu la defal ku nekkaa ko seetaan youtube mu ngi ñii ba ngi taxaw fi amul loo waxu tey comme nga mel ni tey nga lekk ñam tey nga ne duñ ko wuccu soo ko wuccee nga lekkaat ko parce que yow yaa ko lekkoon soo ko wujjoo di nga ko lekkaat yow yow ñi yëpp seetaan la tey nga ne yow yaa ngi toog di wax di yaasa mu ne ko ak sa gémmiñ gi rëy gi wax moom mun nga ko mu ne ko wax moom mun nga ko waaye suñu sëriñ du tax si bi yëpp a wax luñ gis bi ñun ñoo dem si moom ne ko sëriñ bi dañ la bugg waaw nekk taalu bu yam sëriñ bi ooyu kenn ma ne ko sëyam bi ooyul kenn ma ko di si sant yaara rek di ko ñaanal di ko ñaanal soow yal na nga dund dund ba dunda saab yi parce que yow sa dunda dafa am solo yaa dimbali nit ñi vidéo yi tey soo gisee tey nit ñi di xam dañuy am feebar li dañ am yow yaa tax ma ko li ngay def dafa leer nañ dafa leen nañ yaa ngi ko def vidéo ñëpp a koo seetaan ku nekk mu ngi koo gis li nga def nëbbu loog vlog ko ku nekk àdduna si yëpp ñu ngi koo seetaan waaw yow moom mu ne ko ñu ngi laa ñaanal rek ñun moom man moom mu laa ñaanal rek sow yal na nga fi yàgg lool te na nga fi yàgg lool te wér yal na nga fi yàgg lool te wér jërëjëf ñu nekk si Mamour bureau bu jur ñu ngi leen nuyu ñu nekk si Mamour panel bi ñun ñëpp ma kenn waaw madame na nga def. waaw arrêté. tàngoor na ngeen def. wax la kii. saa kaaw sigil ndigaale. waaw sigil sa wàll. alhamdulilah ndogalu yàlla la moom lu mu mujjee wax ak yow. bilaay noonu xëy. ba léegi ñu ngi tere tew mais par rapport ak meloon bu njëkk wax dëgg yàlla am nañ tat bu baax a baax baax a baax macha allah la gërëm ba léegi ñu ngi ñëw ñu ngi traité wu ba léegi wax dëgg yàlla saa bu ñu fa ñëwee nga jox leen seen garab ne leen dem leen bu affaire bi demee ba mu jeex tàkk man dinaa leen wax parce que fii lu ñuy nëbb amu fi wax dëgg yàlla lépp dëgg rek ay dëgg comme ni ma koy waxee macha allah bu mujj bi mooy sama soxna si feebaroon tamit feebar bu métti kooku xam naa ne ko dem ci vidéo TMS yi ci vidéo TMS yi dina ko fekk macha allah kooku it soxna si ba mu ñëwee di sëy si moom de ndekk dafa indaale jinne bu bon boo xamante ni dañ koy yebaloon dañ yebaloon dañoo jëloon jinne bi yebal ko ci moom bu koy yàqal adunaam jinne bi tamit yàlla def ci suturam jinne bi fii la la wax dëgg yàlla ba fi ndaw si daanoo nii moo wala téléphone def appel vidéo direct nga def appel vidéo wax ak jinne bi jinne bi expliqué lépp nga ne kii takkal ma ko mu dëgër nga indi ma ko ko yàlla tuubloo ko tamit yoonu siraatal mustaqim macha allah ba pare nga ne ma kii comme que noonu la demee kii day jël moom it traitement parce que gars yi dañoo xaw a doy waar tuuti parce que duñ duñ duggee ak ni ñuy génnee tamit aussi yeneen ak yeneen def ciy rax moom it ba tey mu ngi def ay traitement am nga daal di koy jox fi traitement un mois mu war a delluwaat incha allah rabbi xam naa après tabaski bi incha allah dina ñëwaat bu neexee yàlla yonent bi mais loolu ku la ko defal wax dëgg yàlla war nga xam lu gën a rafet waaw war na ñoo mën a am bés defal la benn témoignage wax la ci sant la ci gërëm la ci naan la fi nga teg sa tànk foofu la aussi jàngale bi tamit aussi dafa am solo tamit parce que lii njàngale la parce que li ngay def nëbbatuwu ko li ngay def dafa leer nañ képp ko am xel xelu yàlla def ci yow comme li ma ko ni ma koy waxee bëtu leer ti am ci sa sa xol amoo xolu kiñaan nga jàkkaarloog vidéo ceerno yi loo ñàkk am xam-xam ak loo ñàkk xam-ñàkk xam boo ci tegee sa bët da nga ciy jàng ba pare jàng ci àdduna da nga ciy jàng jàng ci àdduna parce que nit ñi dinañ ci yeewu bu baax a a baax a baax comme ma ko doon waxee démb ak barki dem ku dellu yi dina ko seetaan dina xam ne bu baax a baax ñu koy waxee parce que la jàngale la parce que am na ci àdduna bi dafa jaxasoo te te jafe-jafe àdduna yi dafa bëri te nit ñi dañuy dund lu métti ci lu ci bëree bëri jinne yi ak dëmm yi ñoo koy faral di def ñoo ñoo jaxase àdduna bi waaw jinne yi ak dëmm yi ñoo jaxase ñoo lëmbee àdduna bi kon nag macha allah sa liggéey rafet na fi nga teg sa tànk foofu la kantaan nag bu loolu passé tamit aussi gis nañ ñu bëree bëri commencé di def ay vidéo di jéem a profité di jéem a yàq sa der di jéem a yàq sa liggéey di jéem yàq sa der mais mënuñu ko ala kulli xaalin mënuñu ko parce que fii amul kenn kuy daanu nga xamante ni danga koy fay muy daanu loolu yi ñu koy wax am na ñoo xamante ni ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi profité di jël ay vidéo di jël say photo di ko dugal di jël say vidéo say so sa euh, ni koy wax di jël say photo di dugal di xam nga di dugg ci réseaux sociaux yi di jéem a yàq sa der mais wallahi ku yàq sa der dafa xamul waaw ku yàq sa der dafa xamul ñun ñun moom am na luñ ci xam waaw am na luñ xam ci yow lu bëree bëri. asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Daroulaye international ñu ngi di ziar. ak di leen jox seen wàccuwaay yéen ñépp di jiital ci ziyaar ba nuyoo bu ku tedd ka kan war di sant ka gërëm fu mu war a toll di Seydina Thierno Moule Sow ki ne boole boot ñu ñu ñépp sëñ bi ñu ngi wax asalaamaaleykum loolu jàllee ñu ngi nuyu na jëwriñ yi sëñ Cheikhu ngay ziar di la nuyu ñu ngi nuyu Fabalete Konte di nuyu Gala Sow ñu ngi nuyu Dikkel Sow Fama Sow ñu ngi di nuyu yéen ak di leen sant ko gërëm ah, xanaa dellu si rek di wàcc audio boo xam ne yii daanaka di naqarlu toujours rek ñu ngay naqarlu li fi jaar di saay-saay boobu ñu jiitewul eh, ndax eh, danoo nax ñun ñëpp ba jàll nax na nu ñun ñi ñëpp parce que wax dëgg yàlla antegoon naa ko kilifa gu mag a mag a mag a mag tur wa sax bëggatuma koy tudd waaw parce que premier jour bi muy bi muy waxee waxeem jooju rek démissionné man laa ko bloqué dindi ko sama système bëggatuma dégg daraam daal boo ko déggee rek xol bu day gën a amatu naqar parce que sëñ bi wax dëgg yàlla euh, bëgguñu benn wax bu ñaaw di jóg ci kenn nag taalibe ko dul taalibe jëm ci moom parce que nit ki boo ko gëmee ak fan ko teg gannaaw bu yonent bi jàllee moom rek la nu gis parce que damay delloo delloo si waxtaan wax boo xam ne bii bëgg naa ñun taalibe yépp di ko fàtte ko ma war tool ndax jinne boo xam ne bii ay junniy junniy at am na ko mu ne ko man day yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ma yabal nee na yàlla gërëm na la sant na la sunu borom mi sàkk sañ bis sàkk yonent yi sàkk ñu ñun ñi ñëpp nee na sant na Seydina Thierno Bousso kooku nag la yonent ba waxoon rek nit ku bu nekkul ci dëgg nga jëm boo sa làmmiñ boo ko mënul sa doole boo ko mënul nga denc ko ca ba di ko naqarloo ñun de foofu lan toll wax dëgg yàlla ko yàlla jiital di ko sant borom kun fa yàqu ba mu wax ànd ci ak suñu borom ku ko offensé rek offensé nga nu ñun ñi ñëpp waaw ñu am ngi jéggal bu baax a baax a baax beneen saay-saay bi ci des na ki naan jantal maaraa wax dëgg yàlla nga xam ne taxawaay bi mu taxawaayee bépp ak délire bi muy délire bépp jéem a jël place madame soxna fi nekk woon waaw moom daal wax dëgg yàlla man bu may xalaat ay mbiram rek nit ku bon waaw jigéen jur na mais jigéen ju mel noonu ak lii muy déliré man mosuma koo gis mosuma koo xalaat jantal maara jantal maara rek fu mu toll nga yow mi ngi nax àdduna kooku nag ña ngi koy bàyyi suñu borom daal waaw nitu yàlla moom ku koy jéem toroxal di ko jéem a yaa ngay nax sa bopp da wàññeeku sa njaboot wàññeeku lépp lu tax cee wàññeeku parce que xeex ca nu mu yaakaar naa mooy jéem xeex suñu wax ba daa dellu de suñu borom nee na ko ko gërëm nan ko ku yàlla sant gërëm nag wax dëgg yàlla da war a sant ak gërëm rek waaw mooy taal yàlla taal sànni ca matt moo gën jéem koo fay ndax euh, taal bu yàlla taal. doomu adama mënu koo fay day jéem rek te luy gaañu ca moom lay soqe ko waaw euh, ex président moom wax dëgg yàlla sëñ bi teral na ko teral yoo xam ni damaa defe na moom man moo sëriñ ba kenn lu mu wax daal sëñ bi ko ko wax loo waaw defe naa ne moom bu la ñaanalee sax sax euh, ñaan nga daal di toog parce que foofu laa ko tegoon bu nu jot ca sëñ ba rek daal di jot ca moom direct waaw nax na ñu nii ñëpp nag mais mënut a nax suñu borom waaw am na ko duggoon di wax may bés wax dëgg yàlla lii ñuy wax ci moom lépp may bés la rek parce que répétition la daal xëy na nag nee naan la répétition c'est pédagogique muy dëgg mais bu day am lu ko neex ku nit ñi wax ci moom waaw nit ko alk moom nan ko fàtte nekk ci leneen di jéem a amaat ay pasteur ci ñun suñu di jéem wax lu rafet seetlu avancé groupe bi daal wante di toog toujours di wax ci Thierno Moule Sow ko kay jéem a def wax lu bon ak ñàkk gëm ak yooyu da leen di may bi Thierno Moule Sow du seen morom Thierno Moule Sow yàllaa ko yëkkati te nga lijjani jaww donc di dellu naan lii Thierno Moule Sow lii ñee ko wax lii ñii kat jantal mara def lu ñaaw lii def laa kii man daa mi ngi noonu waaw jëmbóor yi la jinne yi ak dëmm yi ñoo jaxase ñoo lëmbe adduna bi kon nag macha allah sa liggéey rafet na fi nga teg sa tànk foofu la kantaan nag bu loolu passé tamit aussi gis ne ñu bëree bëri commencé di def ay vidéo di jéem a profité di jéem a yàq sa der di jéem a yàq sa liggéey di jéem a yàq sa der mais mënuñu ko ala kulli xaalin mënuñu ko parce que fii amul kenn kuy daanu nga xamante ni danga koy fay muy daanu loolu gars yi ñu ngi koy wax am na tamit ñoo xamante ni ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi profité di jël ay vidéo di jël say photo di ko dugal di jël say vidéo say so sa ni koy wax di jël say photo di dugal di xam nga di dugg ci réseaux sociaux yi di jéem yàq sa der mais wallahi ku yàq sa der dafa xamul waaw ku yàq sa der dafa xamul ñun ñun moom am na lu luñ ci xam waaw am na luñ xam ci yow lu bëree bëri loo xamante ni macha allah ñu ne boo ba léegi ñu lay topp parce que koo xamante ni sa doom feebaroon na fi ay ati at feebar bu métti nga taxawoo ko kon nag kooku xam nga kooku li mu mën mooy téye la fukki loxo ak juróom-benn man it ba nga ma defalee teraanga boobu wax dëgg yàlla man it bàyyiwuma boobu léegi bañ naa wax ba sa association bi ñu ngi ci biir association boo xamante ni plus de cent personnes ñu ne ci biir ñoo xamante ni ñooñu ci national bi kese la waxu international yi ñooñu sax dañu leen di jëlale foofu moom li fa nekk ci mbooloo moom mënuñu koo compter te ay magum jëmm ñoo fa nekk te ay kilifa kese aussi ñoo fa nekk macha allah ñoo fi nekk ñoo nekk ci national bi ñoo nekk association tamit aussi Gambie bi tamit aussi même magum jëmm ay mag yoo xamante ne bu ñu nekkee ci association ku ci nekk di ci gis sa bopp te lii la fa bàyyi dafa am lu tax dafa am lu la fa bàyyi mag bu gisul njëriñam ci dara du fa def ay fan ba di fa def ay weer wala ba di def ay at déedéet kon nag alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi lay sant bañ ko ba association yi daarullahi nga leen tuddee waaw kër gi këru yàlla moom nga leen tuddee yàlla ak yenente bi bañ nañ ko ba àjjuma ju ne dañ fay jàngale suñu diine bu weesoo àjjuma ji semaine bu nekk dafa am programme bu ñuy di waxtaan di sottante xalaat nekk famille mu le famille bi yëpp doon benn nit ñi di comprendre lu bëree bëri tey ñëpp tey bu ñu xamee wàllum jinne bu baax a baax ak na muy doxee ak doomu aadama bi dëmm bu duggee nit ni muy nekkee ci moom lépp yàlla ak yow la bu ñu demee bay di maîtriser mbirum seytaane seyaatin jinne seyaatin yi yëpp yàlla ak si jëmm la ba tax na tamit aussi loolu yeewute boobu ñu ñoo am nga xamante ni boo génnee ci biti sax nar am ak nit jafe-jafe sax boo ko xoolee sax xam ne kii kat dafa am lu lu mu àndal kii jarta topp su boobaa sax da ngay comprendre ne kii yaa quelque chose am na lu mu àndal kooku nag yàlla ak sa jëmm moo tax parce que luñ luñ ci jot a xam rek yàlla ak sa jëmm moo tax bu la neexoon loolu yëpp mënoon la cee bañ a fekk Seydou Sow ñu ngi sa taxawaay di rafetlu sa liggéey bu baax a a baax kantaan nag bu weesoo nag ñoo xamante dañuy nekk nag di jéem a yàq sa der ñii di la def ci tiktok bi ñii di dugg ci réseaux sociaux yi youtube di jéem a yàq sa der di jéem a nax sa loolu yëpp ay waxu kii la rek dañuy gën yokk sa maqaama waaw macha allah parce que lu ñu naan weddi gis bokk ci bañ nga ko ba kuy ñëw di faju da ngay taal sa caméra ni acca filmer leen parce que àdduna wóoru waaw yow nekkoo sëriñ yooyu nga xam ne dañuy dugg seen biir nekk teg seen bunt di nax seen taalibe yi di nax ay nit ankaang nit ki di ko faj ba mu wér xam nga ne ku ragal li muy def du du def ay du def contrat client di ñëw di faju di def contrat macha allah loolu ci yow laa ko mos a gisee ci lañ la ci yow loolu lañ ci yow lañ ko gisee loolu ñu ngi la ciy sant di la gërëm te fi nga teg sa tànk it bu ko bàyyi macha allah ñu lay sant di la gërëm sa tànk foofu la te dañuy gën a yokk sa maqaam gën a yokk sa daraja incha allahu rabbi yi waaw parce que nit mënut a yàq nit li ci mën li ñu mën rek mooy di jéem a yàq der te xamul ne li ñuy yàqee dañuy defar waaw dañuy defar parce que yàgg nañ laa tooñ yàgg nañ laa yàq te teewul ba léegi yaa ngi avancé ba wax dëgg yàlla waaw macha allah ñu ngi la sant di la gërëm bu baax te li ñu war a wax bëri na li ñu bëgg a wax tamit bari na mais vidéo yi tamit dañuy bañ mu gudd trop waaw loolu yëpp waaw wax dëgg yàlla moo tax ñu defal la vidéo bi waaw di la wax ne bu la dara yi ñëpp a ngi si ginnaaw incha allahu rabbi waaw fi nga jàpp daal foofu la waaw oto yi ne ca kanam moom la ñuy corné macha allah kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullah